toog fii non non euh, c'est pas des arrestations arbitraires boo gisee loolu mu xew c'est des cas isolés mais ça les est arrivé mm-hmm. mais mais mais boo xoolee cas wu. am na communiqué bu procureur génnee tey. voilà non Pape di ci ah, ci ci mbiru Pape Alé am na benn euh, communiqué bu procureur génnee euh, Pape je pense que la liste des personnes qui ont fait comme Pape Alé est-ce que tu me l'as donné d'ailleurs. Mm-hmm. la liste des personnes. je ne l'ai pas juste ma ñëw ne contrôle judiciaire pour révoquer contrôle judiciaire bi dañoo ne dafa génn wax ci dossier bi. Mhm. mais il n'a n'a pas été là il n'est pas la première personne à avoir fait cela mun naa ci citer ki nga xam ne mooy Bougazali Bougazali en flagrant délit lañ ko jàpp am vidéo bu leer nañ mu naan yàqu naa tee ko ay faux billets mu naan nan lañ koy lijjantee mais sa gars là il est libre mu ngi këram. toog na ci télé bu nekk bas ba jiiñ ñi nga xamante ne ñooy gendarme yi ko ki yoon nañ ñoo gendarme si yooyu ñoo ko bëggoon corrompre moom ci boppam wax ci dossier bi ba géex tuuf li ci micro yi nekkoon ci plateau bi yëpp kooku tey mu ngi këram felenku tey ñu ne Pape Alé Niang dañ ko épinglé parce que dafa wax ci dossier bi lan la wax ci dossier bi Pape Alé Niang bi mu génnee live bi mu def ak Mola Morgan mais ñun ñëpp déglu nañ ko y a des yoo xam ne ça se passe sur le net yow mën nga dugg ci biir internet bi nga seetaan ko lan la Pape Alé Niang wax lu dul ne dossier bi kenn laaju ma dara ci li nga xamante ne moom moo tax ñu arrêté ma toog nañ dem nañ wër ji nañ seen preuve mais du ma ci wax parce que euh, sama avocat dafa am lu ma ñaan nag respect boobu ma ko jox moo tax duma wax ci dossier bi Pape Alé Niang bi mu génnee ba léegi ci wérgu yaramam la nekk bi ñuy ñëw këram di fekk fa jabaram moom mu ngi woon nu mu tëra euh, di jéem a faj boppam kon tey lan lañ jàppee Pape Alé Niang kon ngeen bëgg a toog gën ñoo gëmloo ne nu mu tërati dafa am benn nu mu tërati sobre et vertueuse buy dox ci dëkk bi arrestation arbitraire amul ci dëkk bi nañ ñëw ba ci kanam ci biir li nga xamante ne arrêté nañ leen yëpp wala xoolal non non comme jëlu Pape Sané ak Moussa Ndiaye jëlaguñ parole xaaral ma jël leen après ma ñëw Pape waaw ci kaw Pape Alé bi nga bëggoon wax wala ci non non non de manière globale ramassé quoi mhm. surtout nag waxaale ci mbirum Pape Alé c'est vrai que euh, damay jox dëgg monsieur le maire monsieur le maire. Mhm. il des milliers de sénégalais en prison bu ñuy ñaxtu bu ñuy jooyit dañu leen war a jooytul ñoom ñëpp. noonu non déedéet déet mais ma ma ñëw rek yaay booy. dinaa ci revenir. ah moi je prends au mot Aliou Gérald qui parle de 23. Mhm. mais dafa am la nga xam ne tamit. Mhm. boo gisee nit ñi di ci wax di ci ñëwaat saa su nekk. mooy dafa am la nga xam dafa dem ba commencé di tee xel. ulay dafa wax léegi nii fii ni am na ñi nga xam ne dañuy toog fii ci télé bi muy télé bi wala beneen télé wax lu leen neex ci nit mhm. wax lu leen neex ci dossier wax lu leen neex ci mbir te dara du leen ci fekk naada waaw dara du leen ci fekk comme yenn fo nga gis ñi nga xam ne wax fa dëgg yàlla man damay sukkandiku ci kàddu avocat wu ñenn ñi ñu jàpp ku mel ni Ousmane Diagne bu ma déggee avocat am ne ay benn poste bu mu partagé. def ci ay xale yooyu yi ñuy def yuy reetaan yooyu. ci loolu nañ ko téye man ça me pose un problème ça me pose un sérieux problème ñiy wax waxu les unes détournées ba tey jii ñii nga xam ne noonu lañ détourné seen une ñoom nee nañu porté wuñu plainte mais waaye procureur autosaisir nu ñu jàpp présumément ñooñu nga xam ne nañ jàpp ni ko ñoo ko doon def te bañ leen jàppee ba léegi mbir maa ngi continuer di génn mooy donc ci xel ni mun nañu nangu ni que ñooñu ñu jàpp du ñoom ñoo ko benn ñaar ci diggante bi ñaata mbir yu metti moo xew fii Sénégal te procureur autosaisirul te procureur yéeyu ci yàbbi tey ji dañuy jàpp ni que ñooñu nga xam ne nañu téye kii di leen tuddee otage politique man dama jàpp ni que c'est des arrestations ciblées dafa am ñi nga xam ne dañu jàpp ni que nii ñii faw ñu téye leen faw ñu restreindre seen liberté moo tax ñu téye leen mooy benn bi ñaar bu ma ñëwee ci communiqué procureur bi moi j'ai un problème j'ai un sérieux problème wax fa dëgg yàlla parce que lii mu communiqué bi mu génnee di expliquer lan moo tax ñu. révoqué contrôle judiciaire lan moo tax ñu ñu révoqué le le ñu convoqué le l'article 127. Ah, du code de procédure pénale. Mhm. moi j'ai un sérieux problème. wax fa dëgg yàlla bu dee lii la rek ah. parce que dañ ko ne woon bul wax ci dossier bi mu wax ci. ñaata nit ñoo wax ci dossier bi après génn. waaw sa moom moom laa la wax loolu moom moom a xaw a jaaxal c'est-à-dire que dossier bi en fait. ba ba tey ji ñun ñun ñii man de man xamaguma dossier bi contenance su dossier bi ba tey ji mm-hmm. bu weesoo diffusion de fausses nouvelles ak euh, diffusion de d'informations à caractère militaire non rendu public par l'autorité mm-hmm. man bu weesoo loolu gisuma leneen li nga xam ne mu ngi nekk ci dossier bi mais je dis que encore je reste sur ma sur ma faim et sur soif par rapport au communiqué du procureur. ok waaw je reste sur ma et sur ma soif. en fait li ñëpp di laaj mooy xanaa Pape Alé lañ yem. ñaata nit ñoo fi amoon problème ak yoon génn di wax ci dossier bi. te dara du fekku leen ci dara du leen ci. mais Pape sax dafa waxul ci dossier bi sax déjà. waaw Pape Alé fan la waxee ci dossier bi man bëgg naa ko xam. bon léegi nag ci benn mbir bi nga xam ne dañ ko wax ci communiqué bi mooy des propos tendancieux vis-à-vis du directeur général de la police. Mm-hmm. Mm-hmm. li xool naa xool naa le poste de pap Alé mm-hmm. pour man. jàpp naa ni que kii nga xam ne mooy directeur général police il aurait fii rek son service de communication def un démenti parce que nag y a des gens qui connaissent très bien Bokar Seydou Yàgg qui sont sortis pour dire que soxnaam man xam naa ko xam naa ni soxnaam ba muy nekk États-Unis sax xamul xamul xamul borom këram xamantewuñu man loolu man mun naa ko seede mais je crois que tey jii il aurait suffi juste d'un démenti parce que gisuma ci man ba waxtu bi gisuma ci matière à poursuivre xam nga ndax lan parce que ñun bés bu nekk ñu toog fii ne événement marché yi ministre sangam ak ministre sangam dafa dawoon ak njabootam ministre sangam ak sangam daw nañu ñu ngi woon sali mais ministre yooyu pourtant c'est des autorités étatiques de moo tax ma ne jàppuma ma nii que lii nii mu tudd jaroon na. pour yow kon li ñu yëkkati ci kaw du loolu am na beneen raison bu làq ci suuf man lii mu wax nii rek pour man jàpp naa ni que même si c'est une fausse information. lan nga soupçonné mu nii moo moom war a tax man. non man pour man sax liberté li contrôle judiciaire bi ñu mayoon Pape Alé liberté provisoire bi moi je crois que c'était une pression bi nga xam ne ak grève de la faim bi peut-être que les gens ont jugé qu'il était utile. waaw de desserrer le tout parce que man li ma li ma li ma jaaxal ci yëf yi Fap Fap Sane mooy maa ngi la koy wax léegi c'est-à-dire que xam nga ci communiqué procureur boo ko liiree dafa ni parce que li tax ñu révoqué contrôle judiciaire bi mooy charte yañ ko tëraloon respecté ko dafa génnoon di wax ci dossier bi ñu ko kiiwee mais fii ñaata nit ñoo fi génn di wax ci dossier bi ñu leen di toppee te dara fekku leen ci man loolu ma jaaxal ci yëf yi en fait waaw ba léegi sax loolu man du ma du ma dugg ci gaam boobu mooy maanaam ñeneen ñi wax nañu moom bu waxee déedéet man boo dégg du ma dugg mais c'est-à-dire ba léegi nii dama gisul ci lan la wax ci dossier bi parce que moo tax mu indi sa sorti poste bi mu def ci directeur général la police. Mhm. waaw ne que yóbbu na njabootam bitim réew. mooy maanaam xalaat ni que am na loolu nar a xew suba. Mhm. mais dama loolu yomboon na ñu def un communiqué. pour pour pour démentir ko xamal ko ni que soxna yi directeur général la police. def na plus de trente ans États-Unis balaa moo xamante borom këram sax mu ngi doon dund États-Unis d'accord léegi Pape Alé information bi mu génnee dëgg la waa wala déet waaw ah, soxna si mu ngi ak kii wam rawale na non soxna si mu ngi États-Unis njaboot gaa ngi États-Unis loolu kon li mu wax dëgg la xibaar bi wér na non mais rawal na leen parce que ku nekk la fa avant loolu xam nga ku nekk responsable de la police mhm. des force sécurité di kilifa nga ne ma ngi rawale famille am parce que xam na lii ñëw mais ça c'est grave xam nga nit ki aussi. man li ma li ma bëggoon. non non doyen waxuma rawale na de. non non yow waxoo ko. Ah. mais ñoom moom moo ko wax. voilà ah, d'accord voilà cest à xam nga euh, je crois que man de bu fekkoon ne ku ko jege la wala leneen. Mm. daa ko parce que tam munoo nekk ci mbir say confrères ak yépp taxaw di la kii la ba nga génn ci sa état de santé xëy demewul noonu je crois que war ngaa consacrer ci loolu. parce que tam lenn li du fit parce que li ñuy wax ne témérité wala leen parce que li ñuy wax ne fitu dof euh, euh, mooy dane la teen bi euh, ndox a ngi ci jaan a ngi ci mënoo ndox nga ne daa ci dugg parce que il faut quand même avoir une certaine retenue quand même épargner say sa njaboot épargner leneen waaye bi coogee da ngay foncer rek toujours ci ay wax parce que wax ci àdduna lu bari wax mooy dugal nit safar wax dana dugal nit kaso dana dugal leneen parce que tam ay autorités itam liñ bëgg a nin euh, nin nin nin bëgg a fab euh, autorités yi muy les autorités parce que ay autorités lu toll ne un euh, commissaire division chef de la police directeur de la gendarmerie mais léegi nit ñi dafay mel ni dañoo bëgg a ñemeloo nit ñi lu jóg ñu def ko seen seen seen der jaroon na tëj kaso non waxuma sax tëj waxuma sax tëj waaye loolu buñ ko dee def danañ wan génération mujj nii dañ bëgg quand même banaliser autorité daal kenn tekkitul dara au comme genre gendarmerie du dara tout le temps ñu sànni ci moom dara léeg-léeg sur la base ñu ne oui mais loolu sa digg naa ko fi seen ci ngeen di wax euh, kii ba rapport xam nga Aziz la wax na ab kii mais loolu loolu ñi xam gendarmerie xam ñooñu cay wax leen parce que dañuy wax ne wolof da leen noonu seede mais c'est nga sa c'est c'est nga nekk ci say collègue nga nekk ci corps. évolué fa am fa teraangu génn di bind ci ñoom lu ne ñun xëy na am na xam ne waaye loolu suñu ngor duñu ko may mhm. te te lenn li bu ngeen ko ko xoolee su ngeen creuser tuuti affaire jalousie yi nga fi ci Afrique égré parce que yéen ngi koy reprendre parce que loolu du dara bind na xëy na ñoom fa lan foogoon amuñu ko ña ngay fab directeur yéen itam ngeen ngeen ngeen relais yooyu Moussa Fall Moussa Fall Moussa Fall mais Moussa Fall lan la def ku dem ba nekk un général corps d'armée mais kooku euh, c'est euh, du nit ku tuuti il a la confiance des autorités mhm. président de la république toogoon fi dëgg bëgg ku mel ne Moussa Fall parce que ay euh, sécurité tam ca ay am réew ay caaxaan parce que ñii nu bëgg a banaliser réew mi nag ku wax lu bon ci autorité wax ko ci président wax ci ministre wax ko ci si te terme à ça li ñuy def ñi fii naan dem réew yi nu wër yi yëpp yi kenn ñi ma ko caa xalaatuñ ko sax toog télévision wala directement ngay attaqué ay ay kii te sukkandiku ci dara mais loolu c'est extrêmement grave il faut que ñu revenir daal parce que réew ñu ñun ñu ñoo ko moom. génération yi ñuy ñëw laaj na ñu yaral leen parce que fi mu ne ba insolence lañ leen kii réseaux sociaux yi saaga Morgan Morgan moomu ngay wax demee noonu Pape di wax. man dégg naa li li li muy saaga jëmale ko ci euh, euh, président ak ak mhm. famille am mais loolu man a d'accord ci kenn même ay lu opposant yu demee noonu d'accord mu ci kenn ku leen saaga ndey yooyu. Mhm. mais te les gens le font yooyu buñ ko dee def ngay wax ak ñoom danañ mel ni da ngay cautionner loolu. d' accord euh, d' accord non dama bëggoon que ñu may parce que ba léegi jëlagul parole bi en fait avant ah, ñu defaat deuxième tour quoi Moussa Ndiaye. ah ayca ayca allez ayca. waaw monsieur euh, rek mu daaneel euh, ma daaneel fi mu kii yee papa. Mhm. yaa ngi wax waxu saaga yi ñun ñëpp dañ koo ñaawlu au fait saaga yi nga xam ne ñu ngi koy def si internet bi dañ koo ñaawlu au fait moo tax tey bu ñu gisee bu mel ni institution bu mel ni Macky Sall di toog presque koo xamante ne on parle de c'est en c'est c'est l'insulteur de de euh, nu mu du Sénégal koo xam ne saaga ndey ci ñëpp moom lañ ko xamee di ko seetaane tey muy muy toog ak moom journaliste yi nekk fi wo mu waroon def ak ñoom ay interview muy def ak kooku ay interview jabaram di toog ak moom ñuy voyager euh, ñuy voyager ak moom kon di jël ñoo xamante ne saaga lañ leen xamee di leen fal ay député alors que ne ci biir parti bi am na ñoo xam ne ils ont pour la po pour parti bi kon ñun dañuy ne moom mooy nu mu tëdd mooy mooy fësal saaga parce que dañuy nekkoon saaga ndey day tax nga tekki saaga ndey day tax nga toog ak président tey ñun kon buñ toogee naan nu mu tërati saaga ndey baaxul dinañ ko régulariser mais koo xamante ne moom moo ñu jiite moo njëkk a jël ki nga xam ne saaga ndey rek la doon def amutoon benn métier lu dul taxawaalu nga jël ko indi ko sa wet di voyager ak moom mu lay defal sa communication ngay def ak moom interview te ay journaliste renommé nekk ci dëkk bi mais kon dañuy ne yow yaay nu yaay def publicité loolu circonstance yooyu yooyu mu amee foofa mhm. wóor wóor na circonstance yooyu boobu Macky xamul woon ne saago yi. non non damay wax rek. non non non dégg nga waaw non non non non si. non non dégg ñu dégloonte rek pour ñi seetaan gën a jëriñu quoi. président de la république. Mm-hmm. Euh, nit rek la mm-hmm. am na lu ko mën a échappé. Mm-hmm. te loolu itam grandeur la. parce que Macky du loolu ay kilifa tax wax na ko fi wax lu kii mu muñ ko jàll. parce que loolu moom xëy na moo moo ko mën parce que man su j'aurais été président de la république ay saaga yi ak yu demee noonu vraiment kenn du ma ko def. en toute sincérité